mun nañ ko tëj ñaar fukki at mais mun nañ ko tëj diiru dundam mbokk yi est-ce que xam ngeen ce ki est en jeu ce en jeu c'est la candidature du président Ousmane Sonko ce qui est en jeu c'est la liberté à jamais du président Ousmane Sonko qui risque de passer le reste de sa vie en prison est-ce que ñun mun nañu accepter loolu mais man yow ma foofu damay naan ce qui est en jeu c'est la vie du président Ousmane Sonko est-ce que wóolu ngeen ko ci loxo yooyu noonu. dama leen di poser cette question alors mbir mi taxawaay la laaj parce que tàppale yi ñu def di yëpp buñ ci bëggee génn dinañ ci génnaat ñoo ci dugal seen bopp yegg na niveau boo xam ne nag pour ñoom ñu génnaat ci dina ci jafe parce que am na lu ñu daloon waruñu dalati mooy gars yi ne soyons pas naïfs Macky Sall du musa bàyyi du musa bàyyi ba keroog ñuy téye loxoom c'est ça la vérité à chaque fois ñu jàpp ne jàmm am na dindi na barrière wala contrôle judiciaire dañ na ci président Ousmane Sonko en deux mille vingt et judiciaire nañ ko def placé nañ placé wuñ ko sous mandat de dépôt xeex nañ bu ngeen demee ba foog ne weesu na mu dem réarmé waat jëlaat ay affaire ñëwaat tegaat yeneen mbir ci kaw président Ousmane Sonko jàpp leen ne kon du mësa bàyyi bu ñu dormir sur nos lauriers lii ñu nekk nag taxawaay bi mu laaj cette fois-ci dina gën a laaj temps dina gën a laaj durée parce que seen objectif mooy lan mooy am nañu à l'usure mooy lan bàyyi ñu ñu taxaw taxawaay bi ñu war a am xeex li ñu war a xeex ay ñaari fan ñetti fan ñeenti fan juróomi fan après bu yàggee ñun ñu bàyyi ñu jàpp suñu ay centaines de personnes yóbbu leen instruction jiiñ leen terroriste parce que dañ naan sénégalais yi mun nañoo xeex ñoom xam nañ ne président Ousmane Sonko buñ ko téewee askan wi dinañ taxaw wane seen naqar mais jàpp nañ ne buñ ko wanewee ñaari fan ñetti fan ñeenti fan foofu lay yem c'est à nous de trouver une réponse contraire c'est à nous de de leur montrer que loolu jeex na Sénégal il faut que ñu wan leen ne franchir nañ benn ligne rouge boo xam ne sénégalais yi mënatuñu ko nangu et c'est le lieu nag jaaree fi taxaw taxawaay xeex xeex bi ñu war a xeex ay centaines de personnes yu nekk prison plus de sept cent personnes foofu du seen place mooy war nañu ñooñu noon nga xam ne suñuy morom nañu woon ñu ànd ak ñoom ci taxawaay ak ci xeex mooy war nañu président Ousmane Sonko bi nga xam ne laaj nañu taxaw ci moom tuuti voilà une personne boo xam ne bi mu juddoo ba léegi il s'est mis au service de son pays ñun sénégalais yi ñoo cotiser pour moom mu jàng ndax école publique la jaar am CFEE am BFEM am bac ñun sénégalais yi ñoo cotiser ba mu am université bu baax bu UGB ña fa doon jàngale ñun sénégalais yi ñoo koy fay suñu budget mu jàngee fi juróomi at ñun sénégalais yi ñoo teg système boo xam ne ci ay loi mun a jaar ci concours pour mun a réussir mu lan yamale ñëpp l'égalité des chances ñun sénégalais yi ñoo permettre mu ko réussir mu def formation deux ans nekk dans la république mu delloo ñu monnaie boobu ñu jox mooy mu fay ñu suñu bor. fukk ak juróomi at yoo xam ne ay milliards dugal nañ ko suñ dugal na ko suñu gafaka moom ak yeneen fonctionnaire yi liggéey milliards yooyu noonu tey am na koo xam ne mu ngi war a matu ci hôpital wala poste de santé bi gën a sori ci ci ci ci fin fond du Sénégal moo xam Sinthiou Bamambé la nekk fële ca ca ca ca région de maatam moo xam ci département de Ranérou la nekk moo xam Fongolimi la nekk moo xam Saloum la nekk moo xam Mbëlëxe la nekk mais sénégalais boobu noonu mën na faju parce que lan président Ousmane Sonko liggéey na am na beneen fonctionnaire bu liggéey pour loolu xañ na boppam ay privilège proposé nañ ko lu nekk ci ay poste de direction ak post bu ngeen mënta gis ci biir administration fiscale yëpp xam nañ ko mu xañ boppam loolu pour ne lan Sénégal liñ ma liñ ma liggéey liñ ma formé damay liggéeyal askanu Sénégal loolu tax na tey ba ñun ñi am ñoo xam ne jàng nañ ci école parce que lan liggéenti na xaaj def ko ci gàpp réew mi te mënoon na ko yemale ci boppam dem def redressement fiscal ñi proposé deux milliards cinq cent millions su ko neexoon def ko ci ci poche am mook njabootam dundee ko dafa def sacrifice boobu te boobu ñun xamuñu ko def ko pour ngistal loolu tax na tey man ma mun a déplacé wu dem maatam ak ci tali yu baax loolu tax na tey ay sénégalais di jàng dans de conditions ñu mun a sentir ne am na ñoo xam ne ñu ngi sacrifié wu pour jël dara def ko ci gafa ko état moom ak ñeneen ñu si liggéey mais yamul foofu dafa xeex ba dem mu jaral ko mu dugg ci politique créer parti politique am ñu ci àndal ñi liggéey bi mu ko créer su ko neexoon monnaie loolu pour dem nekk directeur de cabinet am na ñu ko def ñoo xam ñoom ak ñoom ñoo àndoon créer parti bi su ko neexoon mu dem monnaie loolu pour nekk directeur su ko neexoon mu dem monnaie loolu pour dem nekk ministre. mu xeex juróomi at mu jaral ko mu ñàkk liggéeyam boo xam ne mais suturam ci la nekk deux mille dix neuf mu ñëw am quinze pour cent su ko neexoon def ni yeneen candidat yi def dem monnaie loolu nekk ministre nekk premier ministre nekk ministre des affaires étrangères mën na ko nekk am na ñu ko def te gënuñ ko tekki ci xam-xam gënuñ ko tekki ci politique mu continuer di xeex ñu jiñ ko lu gën a ñaaw ci Sénégal mooy lan viole maanaam da ngaa siif nit jigéen pour yegg ci moom. fii ku fiy def lu bon ak jigéen sax da nga koy làq làqatu même bu dee dafa consentir dafa nangu waxuma làq ngi jiiñ ko ne dafa siif jigéen yamuñ ci mais dafa jël balu fetal kooku daj coono yooyu yëpp amatul vie privée ndax Sénégal mooy seul sénégalais bu ñu tëj biir këram illégalement dël ay barrières njabootam mënatuñ déplacé wu comme ni ñu war a déplacé woo doomam mënatul jàng dans de condition ba échoué bagam sacrifice boobu yëpp benn def ko pour Sénégal. ñun ñooy xool ba xam ñun waa Sénégal deretu gor mooy daw si ñun walla deretu gor darul su ñun bu ñu nangoo ñu def ko lu ñu def mu Mamadou Dia bu ñu nanguwee ñu def ko lu ñu def lu mu Lumumba fële ci Congo su boobaa ñu xam ne ñun ñun jeunesse sénégalaise ñun ñoo mérité loolu parce que c'est message boo xam ne du neex mais nañ ko waxee noonu parce qu'il s'est tout donné parce que a il n'a remué ciel pour Sénégal tey esclavage dañ fi parce que moo naroon am gis nga bu président Ousmane ko amul woon Macky Sall ngalab na réew mi kon konoon waxi troisième mandat waxuñ ko de waxi limitation des mandats nañuy dindi fii ba deux mille trente cinq la fi toog teg ko fi neex te loolooy loolooy la vérité moo ñu libéré tey ba ñu mën a am démocratie bii bu sax parce que sinon konoon Macky Sall revenir na sur toutes les libertés pression bi mu teg ak opposition bi mu ànd ak taxaw xeex jiite ko. bu amul woon konoon Macky Sall du renoncé à sa troisième candidature ñun ñooy xool ba xam nag dañuy nangu Macky Sall sacrifier ko tëj ko kaso ñun ñëpp ñu toog mu mel ni dara xew ci Sénégal ku nekk vaquer à tes occupations dem football yi dem seetaan match dem teg sa ataaya wala dañuy wane ne loolu mënul am ci Sénégal parce que c'est notre démocratie qui est confisquée c'est notre liberté qui est en jeu amul benn classe politique quelque que soit seen yàggaay ci classe politique quatre cinq six personnes yi dajaloo ñoom ñooy décider Sénégal ñoom ñooy bokk élection ñi des ci waa Pastef di ay sénégalais comme ñoom ñoo ñu amuñ droit def politique ba bu ñu demee dem suñu siège dañuy jël suñu siège barricadé ko évacuer ñi nekk ñëpp ci siège Pastef na du ngeen def sax conférence de presse kooku xam nga li mu bëgg ci parti bi jël ñëpp tëj ci kaso bi yàq parti boobu tas ko loolu bu ñu ko defee loruñ ñu ñun de parce que kaso yi ñu fa nekk ay nit lañ comme ñun loolu bu ñu ko defee kaso ku fa ñu mu yàgg-yàgg nit mun na fa jugee mais avenir u Sénégal fii ak vingt ans trente bu dee bëgg nañ ñun ñi nekk ci livre yi di lire di nettali naan amoon nañ benn héros bu mel ni Ousmane Sonko di ko jooy ñu ñooy choisir ba xam loolu yoon boobu nañ bëgg a jël wala dañuy taxaw xeex quelques jours pour réew mi libéré wu à jamais et cette fois-ci am na tàmbali waaye amul yam tant amul gain de cause maa ngi jéggalu ci guddal bi waaye fi may daanelee mooy li xewoon mars deux mille vingt et un ñu ne libéré nañ Ousmane Sonko fekk teg nañ ko sous contrôle judiciaire continuer seen information. contrôle judiciaire boobu moo tax ba mënu woon génn ci réew mi def politique am contrôle judiciaire boobu moo tax ñu yoggali seen information judiciaire ba renvoyé mbir mi en chambre criminelle moo tax ñu àtte ko ci dëkk deux ans fermes kon bu ñu nangu cette fois si ay ay victoire de façade yoo xam ne dañ ñu koy offrir pour ñaari fan ñetti fan nañu xool fi ñu jëm te incha allah lépp lu mu laaj ci taxawaay na ku nekk def xam ne boppam la koy defal avenir moo nekk en jeu. ku ci nekk sa tribunalu conscience ëllëg moo lay interpeller maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di wax ne taxawaay taxawaay résistance wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh